jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mr. Shake bravo les lions bravo les lions Sénégal a défait na Sala, Égypte Salah sigil vraiment gars yi Amérique. C'est un nouveau seetaanuma match oui. waaye sax fi may liggéey benn sénégalais moo ma njëkk jox résultat c'est super rendez qui munema Sénégal mo mené 1-0 ouais comme nous m'avons donné l'idée munema c'est un match bi ouais mais pareil je me suis fait le Sénégal gagne encore l'Egypte. Comme nous avons gagné dans le passé. Penalty. Je suis dit que je suis allé me faire un match. Mais un match fou, une ambiance folle. Et ça, c'est dès 100 000 personnes qui sont venues. Si vous avez 100 000 personnes, 50 000, 60 000. mais stade bu bees la c'est vrai stade Macky Sall la waaw Macky amatina ndam loolu kenn du ko bañal waaye nag Sénégal yëpp am ndam vraiment football bi moom rafet na ci biir match bi gis nga yëf yi dafa mel ne yàlla moo ko bëggee noonu quatrième minute la Égypte dugaloon fële euh, Saliou Ciss dugal suñu camp fële euh, Égypte quatrième minute Saliou Ciss tamit coup franc moo tax Boulaye Dia daal di égaliser match bi waroon nañ ko mën a gagné ndax Ismaïla Sarr occasion bi mu raté vraiment lolu lolu moom bu gagné won Sénégal Ismaïla Sarr dootul jar dara prolongation yi tamit jakarlo góol encore daal di ko door ci kom bobu sax gëna yom ndax premier bi sax affaire artiste la doon jaay xam nga mais deuxième bi nga xam ne bal bi mu day ñëw rek dugal tank mu dugg mais yàlla xëy nii la ko bëggee woon ndax Ismaïla mënoon na dugal égyptien yi tamit dugal je sais pas parce que defe naa du woon mort subit mais de façon penalty yi kenn xamul lii la la naari nga xam ne penalty rek lañ leen xame mais naari raté ñetti penalty yi Salah ñëw raté penalty yi waruloon njëkk a dóor Saara xam nga defe naa moo njëkk a ci égyptien yi xaw ma ci sa pas mais dégg naa Koulibaly sax dafa raté ah mais Bamba Dieng sa gosse là il est extraordinaire penalty yu rafet lay def Bamba Dieng bale passe penalty bii noonu la ko defoon defe naa côté gauche la woon bii paa mu ñëw def ko côté droit xam nga Salah ñëw ak pal bi kenn xamul lu muy def day aji mango pression bi ndeysaan euh, Ismaïla Sarr vraiment comme moom dafa waroon dugal dugal mais gis nga yàlla li mu def yàlla su suturaal ko mu dugal penalty bu baax Bamba Dieng ñëw dugal Sadio Mané daal di ñëw daal di eggal yëf yi mais Sénégal ah wax dëgg dëkk la boo xam ne ah, je suis fier d'être sénégalais teel la. porte la gars ah jour là. mom jour bu chance là. jour bu chance là. 29 neuf jamais jour là jour Sénégal gagné na ah ambiance bi neex na dañuy faté politique dañuy lépp comprendre nga li lan lay wone né nit ku ñuul ñuy wax nit ku ñuul nit ku froid Sadio Mane ñeu penalty bi mu dóoroon le dóoraat même côté xam nga daal du ñu yobbu coupe du monde sala ndeysaan fin de match ndeysaan dañ ko escorté ndeysaan ñu wane ko vraiment il était choqué métti Égypte métti ben équipe japp la ci ben euh weer wala weer waaw mu dóor la ci ñaar yoon ci même condition métti Égypte mais nak Égypte ñun amuñu lu ñuy wax civil ville ligalé parce que gagné ngeen coupe d'Afrique xaw ma sept fois yàgg ngeen am ay ndam. waaye nag Salah vraiment li ko dal métti na mais ñun vraiment léegi nag lu ñuy xaar ci sénégalais yi mooy bu ñu demee coupe du monde nañ dem demi finale wala ñu dem final parce que tamit coupe d' afrique champion d' a euh, vraiment ci même année nga nekk nga qualifié champion euh, coupe du monde mais waroo dem coupe du monde rek pour pour noonu vraiment Sadio ga Mané gàcce ngalaam suñu booy gauche bi raté na penalty am na ñeneen ñu raté penalty Ah, ah, Pape Gueye la xaw ma boy booy bi nu mu tudd sax xaw ma nu mu mais Bamba Dieng macha allah macha allah Aliou Cissé vraiment ah, congratulations félicitations félicitations à tous les sénégalais Li dafa war tax Sénégal yu nekk benn Macky Sall faire Adji Sarr bi ñuy wax da ko jël mu teg ko ci ginnaaw comprendre élection yi euh, euh, euh, législative yi na fexe mu mu nekk ci élection yoo xam ne. day jaar yoon bu ñu ko gañee mu nangu mais lii bu mu tax Macky Sall yaakaar ne war na mën def troisième mandat ñun ñoo rek lañ wax yàlla bu lay utal porte de sortie da xam ne yàlla da lay utal porte de sortie waaw Sénégal c'est un pays boo xam ne ñun du ay coupe d'Afrique wala coupe du monde moo tax xale yi fàtte liggéey ak bi kon Macky Sall lu ñu koy wax rek waa APR ak Benno Bokk Yaakaar nañu xool lii mu nekk benn Sénégal dëkk la boo xam ne yàlla moo ñu suturaal waaye nag bu dee xool leen loolu ngeen topp di wax naan dañuy convoqué Khady Ndiaye da ngeen di convoqué Ousmane Sonko wala lii doo leen ko delloo passeport am li amoon mars bële passé te ci mois de mars la ñu nekk ba léegi kon nañu fàttaliku loolu mais pour le moment bu ñu wax wax politique vive le Sénégal comprendre nga vive les lions bravo bravo bravo une date historique lii dafa gën a siggil Sénégal euh, sur le continent africain ak sur le monde like leen partagé leen beneen merci